des ko war a xam xam ko nag mën naa tax nga màggal ko ndax koo war a topp rek war ngaa xam mooy kan pour nga wàccee ko wàcc waayam koo fonk doo ko topp waaye it war ngaa xamit jikkoom ak doxalinam ndax roy ko rek moo la mën a musal koo xam ne roy ko rek moo la mën a musal war ngaa xam mooy kan ba ëllëg kenn du tilimal mbiram war ngaa xamit lam doon def pour mën ko roy faslu li ab fasara ittiraaru ibaad yi buy jàngale ci loru jaami ila maarifati rasul jëm ci xam yonent bi faslu li ab fasara wa min ha huna fii taalamu ngay xam ittiraaru ibaad yi loru jaami fooqa kulli dawratin ci kaw bépp lor ila maarifati rasul jëm ci xam yonent bi jaami soxloo gi soxloo xam yonent bi mu ëpp soxloo guñ soxloo leneen lu dul loolu seen aajo ci xam yonent bi tolloo wut seen aajo ci xam leneen lépp loo xam ne am na solo ci jaam yi bu ko am problème xamal ne xam yonent bi moo ko ëpp solo buñ ko ñàkkee problème bañ ciy jëlee mu ëpp wa maa jaa ak li andi na moom yonent bi bii moom war nga koo xam wa tasdiqee war nga koo dëggal fi ma axbara ci dam xibaar bii moom wa war ngoo topp fii ma amara ci lam digle bii ci moom fay loo naka li am ba am laa sabila det yoon ila saadati jëm ci texe wal falaaxe ak xéwan laa fi dunya du caagan ci àdduna wala fi axirati du caagan ci àlaxira illa ala aydi rusul mooy ci loxo yonent yi texe ci àdduna àlaxira ci loxo yonent yi rek la mën a nekk wala sabila déet yoon ila maarifati tey bi jëm ci xam lu teey wal xabiis ak lu bon wala tafsir ci teqale ila min jihatim lu may seen wàll nga xam lu baax ak lu bon kooku ci yonent yi rek nga ko mën a xamee bu dee texe ci yonent buntu yonent yi rek nga ko mën a amee te jaam mënu ñàkk texe bu ko amul amul dara kon soxla na xam lan mooy yonentu boobu lu baax ak lu bon ci xam yonent nga ko mën a amee kon war ngaa xam kan mooy yonent boobu wala sabil déet yoon ila maarifati tey bi jëm ci xam lu teey wal xabis ak lu bon ala tafsir ci teqale ila min jihatim lu mooy ci yonent yi wala yinaalu duñ am ridallaayi ngir maa ne yàlla albattata gu dog gi ila ala aydim lu mooy ci loxo yonent yi ngir maa ne yàlla ci loxo yonent yi rek fa tey bu aji tey min amaali si jëf yi wala aqwaal ak wax yi wala axlaaq ak jikko yi lay sa nekkul ilaa hadiyum lu mooy njubag yonent bi jëf yu baax wax yu baax jikko yu baax mooy la yonent bi nekkoon rek wamaa jaaw ak lañ andi bii ci moom ak la yonent yi andi loolu daal mooy lu baax foofu ñoom yonent yi almisaanu ñooy balaas a raajahu gu lëng alladi nga xam ne ala aqwaalihim seen wax wa amaalihim ak seen jëf wa axlaaqihim ak seen jikko tuusanu mm-hmm. la ñuy peesee al aqwaalu wax ya wala xalaax ak jikko yi wala amaal ak jëf yi ci wax yonent yi lañu xoolee jëf yu baax wax yu baax seen wax ak seen jëf ak seen jikko moy lu baax lu dul loolu mooy lu bon ci la ñuy peese aqwaal wax yu baax yi wala axlaaq ak jikko yu baax yi wala afaal ak amaal ak jëf yu baax yi wa bi mutaabaatim ci topp leen yatamayazu lay ràññee ko ahlul hudaa ñu gindeeku ñi min ahli dalaali ci ñu réer ñi ñu am ak ñu réer ci topp yonentu la leen xàmmee fa daruratu lor gu ñu loru ilayhim jëm ci xam leen ak ci jéem a xam seen jikko ak seeni yoon enzamu moo gën a màgg min daruratil badani ci lorug yaram bi ilaa ruuxi jëm ci ruux yaram soxla na ruuxu waaye ruuxu ni mu soxlaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ëpp ni yaram soxlaa ruuxu yaram bu amul ruuxu dafay dee waaye ruux bu amul yonent bi sànku te bu ruux sànkoo yaram sànku soxla gi soxla yonent bi moo gën a màgg ci suñ soxla wala ayn si soxlaa bët ilaa nuuriyaa jëm ci leeram bët bu amul leer gumba waaye doomu aadama bu amul yonent du xam fu muy teg tànkam te gumba moom ak ñàkk am du la xalak ruux gi bu jugee ci yow deere ngay def loolu loolu du problème dee du problème bët bi bu amul leer gumba ngay def loolu du problème waaye ku amul yonentu moom ñàkk ko safara nga jëm loolu problème gu gën a mag war ruux moo gën a am solo soxlaab ruuxu ilaa xayaatiyaa jëm ci dundam dundab ruuxu dund ci xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko gën a foor ndax ku ñàkk yonentu alkuraan faayu daruratin ban lor waxaajatin ak aajo فوري دار بو خامني دوغال نانكو مانام بيب لور اك بيب سوخلا بو ام تي نيتكي خمال ن فضروره العبد لور جامبي وحاجته اك سوخلا جيم سوخلا الى رسول جيم تشينتي فوقها موكا كاوي بكثير تشو بري لور مو مانا أنا رك جامبي سوخلا جيم سوخلا يونتي موكا وما ظنك لما سنجرتو bi man ci nga xam ne isa xaaba bu fàdde an ka ci yow xat yuhu njubam jaa bii ak lam andi tarfata aynin xafa xippi fasara yàqu na xal bu ko sa xol loo njort ci koo xam ne njubam bu la wanee gannaaw xafa xippi rek sa xol yàqu wasaara mu mujj wasaara mujj moom xol kal xuuti comme jën isa faara xanam teqalikoo naag almaa ndox bu tàqalikoo ndox dee waaye nit bu tàqalikoo njubam yonent bi wowu daa ñu teg jën ba fil miqlaat yi ci cin bañ koy baxale jën buñ ko tegee ci bañ koy baxale xam nga ne moom sànku na mënatu nekk waaye doomu aadama bu tàqalikoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek yàqu na fa xaalul abdi mbiru jaam bi inda mufaaraqa bi qalbi jamono boqol bi tàqalikoo li maa jaa jëm seen andina ci moom ak rusul yonent yi ka haajir xaali comme nii la mel boo tàqalikoog yonent bi comme ndox mu tàqalikoog jën dee ba li fi nekk enjeu moo gën a màgg sax ndax ndox bu tàqalikoo jëm jën moom lekk rek lañ koy def waaye kële moom dañ koy mbugal mbugalam dappet walakin waaye nag laa xisu du yëg bi aataa ci lii illaa qalbu lu may xol xayun buy dund xol buy dund rek moo mën a yëg li wa maa li jurxin bi mayitin ilaamu mu ne wala ila wa maa li jurxin dédd ñeel gaañ-gaañ bi mayitin ci néew ilaamu ak méttital mm-hmm. néew boo ko gaañee du métti waaye ne ku xolam dee ci gëmutu yàlla moom sori yonentu mën naa bañ a métti ci moom fekk moom ruuxam moo dee rek xolam moo lëndëm mais bis bu demee ba xol bi di leer bu sore yonent bi dana yëg ne mu ngi ci métti bu mag wida kaan bu nekkee saadatul abdi abdi texeg jaam bi fi daaree ñaari kër yi muy àdduna alaxira mu àllaqatan di luñ ak hmm. bi hadi nabi si njuum yonent bi sallallahu alayhi wa فيجب دنا بار على كل من نساتي كيف كل عابر نصوبهم وأحب مبغ نجاتا أغمتم وسعادتا أكتخم أن يعرف مقام من هدي يوم ينتبه وسيرتي أكدخلنا وشاني أنبرم ما لا نخمنا يخرج دنا جن بيت ممن الجاهلين شويريري بيت ينتبه وفقية تخادنا الأقراء ممكن top yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon kep ku bëgg laay bir sa bop bëgg mucc bëgg taxé war nga xam ci doxalinu yonent bi loo xam ne dana la génnee ci ñu réere doxalinam war ngaa xam ci jikko yonent bi loo xam ne dana la génnee ci ñu réere jikkum su paree nga mën koo rey pour mën a texe war na ci xam ci li nga nga xam ne way duxul dana duggee bi ci moom fi idaadi at baayi yi ci mbooloom ñu ko topp wa ak kuréelam wa xisbi ak partem war ngaa xam ci doxalinu yonent bi jikkoom mbiram loo xam ne dana la boole ci ñooñ yonent bi wan naa su ñu fi hada ci lii bayna mustaqilin ñu ngi si diggante ku ci néewal wa mustaksirin ak ku ci bëril wa maxruum ak kuñ xañ nit ñi dafa am ñoo xam ne xam nañ ci yonent lu bëri ak ñoo xam ne xam nañ ci lu tuuti am ñoo xam ne xamuñ ci dara waaye topp gi noonu la mel dafa am ñoo xam ni dañuy topp yonent lu bëri roy nañ ko ci am ñoo xam ne xam nañ ci lu bëri lañ ci topp am ñoo xam ne toppuñ dara ñu kon xam gi ak roy gi du benn dafa am ñoo xam ni dañoo doon yonantu ca wax ja am ñoo xam ne ñoom doonuñ ko ca wax ja waaye dañ ko doon ca xaal ba ak ca jikko ba yàlla yàlla boole si ñoom ñoo gën foofu wal fadlu nga neel bee di laay mu ngi ci loxo yàlla yuuti dana ko jox ma ne saa ku ko neex waxu diw de ko ne alazim bàyyi mag faslun li ab fasale la wa haadi كلمات اي بار لا يسيرة نيو دا فاي بريزانتي تيري بي كوم كو داغا ورا خام يونتي بي تيري بي دا فاي خام يونتو نون لا بوغ لا يستغني دو دويلو ان معرفتي على تي خام كو من كان خام لو نيل نكو ادنا همتي ني تي جينا سوفي الى معرفه النبي جيم تي خام يونتوم صلى الله عليه وسلم وسيرتي اك جيكوم وهدي ام جوبم بو بوغي خام يونتي بي خام دوخلينم خام جوبم يي فوغا خام ixtida sàkku na ko alxaatiru xalaat ba almaqduuru ba da bañ sooyloo ala ujarihi ci la feeñ wa bu jëri ak lu nëbb wala ala ujarihi wa bu jëri ànd ak ay ayibam am nañu ko fi déglu xaatir bi nga xam ni dafa sooy mënul génne dara mën a xalaat bu mënul génne benn résultat xalaat bu xam ne mu ngi ànd ak ayib bi dul jeex moo génne lii maal bidaati ànd ak mas ni al musjaat bu lamb mm-hmm. allati ba nga xam ne laa tan fatu du ubbeeku laa ñeel ko abwaabu bunti abwaabu sudati bunti dégg nga yiñ tëjee maanaam xam-xam yiñ tëj li ma yore ci xam-xam ak sigi mënu mënul leeral di benn masala la mm-hmm. walaayat naafasu du njëkkalante fiyaa ci mas ni al mutanaafisuuna mm-hmm. way njëkkalante yi la ma yore si marchandise maanaam ci xam-xam kenn soxlawu ko ma taaliqa ànd ak commenté ko fi xaali safari si jamono tukki lal xaama du jaagen sax maanaam téere bi ba mu koy defar mu ngi ci tukki kon ci biir tukki la taarifee téere bi wal qalbu xol bi minu tukkee si moom soxbatun cër bi kulli waadin si bépp xuur Mm-hmm. sama xol a ngi dugg ci xalaat di xalaat lu ne xam nga koy tukki mm-hmm. day bëri problème mm-hmm. wala himatu yi tey ji xat tafaraqat taqalikoona chasara mazara dogit par dogit wal kitaabu te téere bu ma xool sax mafquudun lu ñàkkal amul fi ba man def taw kuy ubbi baaba en buntu xam-xam li muzakarati pour nafatanteeg moom mahdumun ku ñàkk la kon téere bi moom ci tumuranke la ko taarifee amul ay waay amul dara ci tukki di bind rek ci di bind maa du munu ñàkk la moom borom xam-xam boo mën a wax xëyru moo jur amu fa foo mu dul almi ban tab xam-xam an naafii bi aji jëriñ alkafir bi aji warlu bi saadati ci texe xad asbaa mujj na zaawiya di aji lax warab barabu xam-xam ba ñuy sàmm xat aw saha wéet na min ahli yi ci ñooñam borom xam-xam yi nekk duñu fi maanaam waxaada del na moom barabu xaaleel daaji wéet minum ci borom xam-xam yi ñu ngi toll yam jamono yoo xam ni daal xam-xam bëreetul fa lisaanu aalami làmm ñu borom xam-xam ba xat mu dee feesal nañ ko bil xulóori ci gëx mu daarabatan ngir wuuteen teeg li xalabatil jaahilina wala dóoran teeg li xalabatil jaahilina ci noto gooy réer réer ñu dañoo bëri lool ba daanaka mën ngaa wax xam-xam yi nangootu yi rootuwaay ay tuñam maanaam xam-xam bu doon dox nga ne tuñ ko doon root dafa bari mm-hmm. léegi nag mm, bëreetut la doon xam-xam nit ñi doon ko naan mm-hmm. waaye loolu ma aati boobu mooy la ñuy yeddi lu bon li mm-hmm. li kasa fi mun xarifii na ngir bëri ñu jeng ñi wala mu xarifi na ak ñee jengloo jeng dafa bëri ñee jengloo dafa bëri bala doon jub léegi mooy réer falay si nekkul la ñeel xam-xam mu awilum benn sukkandikuwaay illa ala sabri jamil lu mooy si muñ gu rafet léere loo waaw maanaam daal amul lenn lu ñuy sukkandiku léegi borom xam-xam it amul lenn lu mu sukkandiku lu mooy muñ rek ndax xam ne ne jamono bi jamono bu sànku la wamaalu di diñeel borom xam-xam benn aji dimbale wala mu amul ku ko jàppale mm-hmm. illa allah lu mooy yàlla wax doo moom dong boobu moom yàlla xas naa doy nañu ne mu baax al wakiilu kañ bàyyee mbir yëpp moo di yàlla kon su ko defee si situation yi la taayif téere bi si biir situation yi wax na la li tax mu taayif téere bi mooy ñàkk xam-xam moom mu nekk ci tukki au lieu muy xalaat yeneen mu jël taam yi def ko si taayif téere ni lim njëkk jàngale mooy fasul li ab fasal fii nasa bi ci askan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam jëm bi dafa war booy xam nit ne war ngaa xam ñun ñooy maamam fan la jóge woo moom yonent bi xayru ahli ardi moo gën ci ñooñ suuf nasaban ci askan ala itlaaq ci booyal askan woo mën a gis rek askan la yonent moo ko gën fali nasabi ñeel na askanam mina sharafi ci teraanga ala zirwatin gën saa kaweeg njubbu askan yonent bi mooy askan bi gën a kawe wa daaw ay noonam kaanoo nekkoon na yashhaduun di seede la ñeel ko bi zaalika ci loolu noonu yonent yàlla Muhammad sallallahu xam nañ ne askan mu bokk luñ ko bañ bañ moo gën a baax ñëpp askan wala daal li moo tax shahida seede na la ñeel ko bii ci moom addu noonam izaka jamono boobu Abu Sufyaan benn yi day malik ruum ba mu nekkee ci kanam buuru ruum Abu Sufyaan buur lum daf koo laaj mu won ko ne ko askaram askan wi gën a tedd ci askan wi ci la bokk te boobu gëmaguloon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa asraful qawmi ki gën a tedd ci nit ñi xaw moo mooy itam wa asraful qabaayil ki gën a tedd ci kuréel yi xabilatoo mooy kuréelam wa asraful afxaas yi ki gën a tedd ci faxsu yi faxisoo mooy faxsum faxsu ak kuréel ak qabaayil yëpp benn la rek xam nga kuréel gu mag day juraal kuréel yu ndaw si biir gën a tedd si doomi àddunaa ni doomi àddunaa ni mën ngaa wax ne Quraysh si gën a foor mm-hmm. Quraysh it Banu Hashim moo si foor loolu lépp lu tax parce que yonent bi ci la bokk foofu mooy Muhammad bun Abdullahi doomu Abdullahi bun Abdul Muttalib doomu Abdul mm-hmm. Hashim بن عبد المناف دوم عبد المناف بن قصي دوم قصي بن كلاب دوم كلاب بن مرت دوم مرة بن كعب دوم كعب بن لؤي دوم لؤي بن غالب دوم غالب بن فهر دوم فهر بن مالك دوم مالك بن ند دوم ند بن كنانة دوم كنانة بن خزيمة دوم خزيمة بن مدركة دوم مدركة بن إلياس دوم إلياس بن مدر مدر دوم مدر bun Nizaar doomu Nizaar bun Maadu doomu Maadu bun Adnaan doomu Adnaan nii la demee bu ba ci Adnaan nag daf daan to noppi borom xam-xam yi diggante Adnaan wóor na Ibrahima maamam la Ismaayila maamam la waaye diggante Adnaan ba Ismaayila nag moom kooku moom njaxas gu bëri dugg na ci moo ilaahu ilaahu naa ba fii maalumu sixati lañ xam ci lu wér متفق لن دبو عليه من بين نصاب بين سيدي غنت ني دوخ سي الاسكان دين دال مو ني بي عدنا تخوت ولا خلاف دي تغوتي في دي نيك البت مك نيب داكور نان سي مام يي ما ام لاج واي ما فوق عدنا لا نيك سي كو عدنا مختلف نان ووتيل في سي مو ديغنت عدنا با اسماعيل موم بروم خم خم ووتي نان سي ووتي و ري ري دي ليك بروم سيري خول مختوم لم فوف اي مام ييب با سي ادم سام موم سي عدنا با سي ادم اي لو ورو نك wala xilaafa dil wutee baynum seen diggante an adnaan ne adnaan min waladi ismail muy bokk ci ismail alayhi aleykum wasalaamu jàmm adnaan moom it sëtu ismail la du ismail la ku jur direct waaye sëtam la diggante ma ismail la maam yu bëri réer na foofu kon su ko defee ñi ñooy maam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam min waladi islam statantuma tawfiqi illa billah alayhi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته